waaw wala boog sama chemise bi safu leen karo kase coca cédé bref mais man fu ma nekk man xaw ma li xew dama dégg ñii di saaga Cheikhu na ñii naan Jojo fii man Jojo sax jigéen laa ko tegoon nekkati wiiri wiiri mu ngi toj ndey dëkk bi man xaw ma ko woon te xaaral ma doxantu xool le doxantu de muus épisode 100 bii su njaay compte plein mais épisode 100 mooy ndey lan 100 épisode 3 saison alu de mais bon comme vous wiiri wiiri nañu wiiri wiiri rek xaw ma kañ nday ndaare si épisode 100 bi rek laay doxantu déjà techniquement durée épisode yi c'est du def nday lu ma mais def faire format bu correct tamit premier épisode 16 minutes puis après 18 minutes 23 minutes 24 minutes 25 minutes 27 minutes 28 minutes 33 minutes 42 minutes 44 minutes Mahamadou Ibrakan. et puis épisode 100 30 minutes pour 5 scènes. bon les plans. mënul wax dem. bay dose yogul aalu de sa tànk yu t à n d a y mi ngay fitasu yow da nga neex pàdd t naa m o nooy rek bu d o man su ma fusetee sa ay waay d o t o ko defati de l ë f a ndaa jëlal ma paire Zora lu mu kase nii mais ki war nañu cotiser mise à jour ko rek mu nok ay cuusam yu rose parce que col ci chemise bi dafa rose nee yo yaay dafa kasse xam ngeen kasse kagn la xewi 1996 la xewi muraam yi di kasse ci air bi diko bok diko di gëm pendant que ci yé kay lël saak sumbulu bu rose bi nok ko ci dul way ak barayam bu njool ak mën a sanday yow mom doto ko defati ñaf nañu sanday MC dem dama MC kay dina dem MC rek gisoo leen sàmmet bi sax ah Vivi paccal pacc ah buuba bàjjo buuba doo récupéré waat xale bi entre nous bi la Vivi bàyyee ba sa bopp bi dafa dem tu étais discret ndeysaan léegi comme gun fut xam nga lan mooy gun fut gun fut mooy ginaar yooyu amul donc si baat ginaar yi amul donc si taat nag ñoom ñooy gun futas keek gun fut gun fut gun futas keek taat suqeeku keek ay waaye suqeeku vivi dem na buuba suqeeku na moo tax buuba di toog si plateau jàkkaarloo bi di futas keek yi di laatal ndey xale bi baax na xam nga ne vivi mii moo ko ñaas te tuun la maaw ñu dem xam nga turu hôtel dafa rëy moo tax ah, Soumboulou tamit doo takk nday sa ceinture te nga bàyyi sa téléphone bii nga yore te nekk au volant fii see waay accident yu bëri si tali bi la waa ji yoroon bàyyi leen xel si li mais production bi aalu ngeen nag fàtte jox bàll serviette bi ci deuxième scène bi xool bi muy dugg dafa yore nday benn serviette xool leen bi faux raccord yu ngande yi mooy lan dafa sànni nday serviette bi wala dafa coob ndayam bëri nag ak ñu mystique xoolal léegi mu toogaat serviette bi ñëwaat ndànk toog lëfal nday lii waay mu jug bàyyiwaat fa serviette bi fis see waaya lon mais booy topp nit ki kay ça demande un peu de distance et de discrétion xoolee la petite nii rek amul sax oto seen diggante lii dafa cuune waay et puis toppante ci suba ba dañu doxantu sama direction lay ñëw. waay nee na ko sa direction lay ñëw. ndax Soumboulou bàyyi na voie woon ñëw ndànk ba si waa ji taxaw ubbil ko vitre bi. ndax avant vitre bi dafa tëju woon xooleen ko ci image bi après daal waa ji dugal ko ko ndànk autant que waa ji déplacé wu si beneen trottoir bi moo gënoon yomb Soumboulou di bàyyi voie woon et puis xooleen ko doombaram ji ak njaabam bu kàttan ndayam bi maa ay ca. policier bu tent boppam tamit mooy ndey lan seen police bii ngeen bindee à la main man daal seen production bi jaaxal na ma et puis gis lu weex rek ne drogue la te xanaa xamu leen lii dafa bëri lii gën ngaa neew 200 grammes la xam ngeen lu 200 grammes di jar Seexuna fan lay jëlee nday lu mu jëndee lii Seexuna dafa yor ah Badio eh xaw ma dara ci drogue nag de bu leen aalu de dama leen jox information rek et puis brutaliser xale bi nii sans wax